fu mu ko munti fekk ci àdduna fii lay ñëw gàmmoo fi mais aussi képp kuy Baay Faal ci Sénégal da nga jugee dagg fa nga fa nga ne danga fa dagg si te ngir agsi fii gàmmu si donc moo taxoon ñu ñëw di ziar mais aussi ñu bëggoon lancer wale un message parce que gis nañ ñu démb président ñëwoon na Thiès Bassirou jomaa Diakhar fay doon seet si kilifa diine yi waaye mu mel ni jotul yegg si fii fi nga xam ne fi la xalif général des Baye di gàmmoo donc euh, lu mel noonu nag bu amee ñun jàpp nañ ni xëy na daa jotul information rek xëy na tamit daa fekk loo xam ne tradition la fa woon ca état ca ca palais ba ñu koy def waaye ren ni ñu ñëwee ci e, bopp nguur gi nekkul ni benn pàccu sénégalais rek moo ñu fal ren dafa am couche am solo rawatina e, doomu daara yi doomu rawatina Baay Faal yi ñëpp ñëpp nekkoon ci combat bi nga xam ni ci lañ ne woon ba tax na bu loolu amee jàpp nañ ne e, bu visite day am moom day war naa mën a bàyyi xel fi nga xam ne fi la xalif général des Baye Fall di gàmmoo chaque année et rawatina bàyyi Fallu Sénégal yëpp fi la ñuy ñëw te buñ nee bàyyi Fall xam ne loolu identité culturelle la dèjà boo xam Sénégal rek la donc ay sénégalais ñoo fiy gàmmoo donc xam naa nag li war ci ay moyens li war ci wàllu état bi ak ñi leen fi représenté def nañ ko waaye ñun leen rek la ñuy mooy président suy ñëwati mu bàyyi xel fii. di Medina Fall fii di pencum maam Cheikh Ibrahima Fall di këram mu sanc ko am fi titre foncier donc looloo nekkoon message bi euh, di leen jaajëfal bu baax a baax di bàyyi sëñ Xaadim mu am kàddu yim ci euh, euh, dolli jërëjëf. naa wadd jëruñu fédération Sikrullahi fii ci Thiès maa ngi leen di siyaare bu baax di ñaanal sëñ bi mu yàgg fi lool te wér comme ni ko sëñ Abdou Seye waxee rek Ousmane Ousmane Sonko daa am bor bu mu war a fay Baye Fall loo xam ne Baye Fall yi ko koo lebaloon te noonu ko jàppe woon wér na ma ni ba tey noonu la ko Baye Fall yi jàppe waaye lii may jubanti sëñ Abdou Seye tu kàddoom yi lu tuuti rek lii am daawul am pale ndax lu tax ma naan daawul am pale bu njëkk gàmm kenn xalaatul woon njiitum réew ñëw ci Thiès moom comme que góorgóorlu ni jéem a baax di jéem a def lu lu matale ba gàmm gi ñu jugee Tiwaawan wër kër diine yu bëri fii ci Thiès loolu mi ngi doog di am kon jub jubal gi ak jubal gi ñoom ñoo ngi ci yoon waw dañ koy fàttali rek ñun ñi nga xam ne ak njabootam lan te dañoo àndoon xeex bi ba muy metti ba ni metti lan àndoon xeex bi ndox bis ba euh, bis ba sëñ sëñ bi euh, Ousmane Sonko ñëwee Touba mën na ni mën nañ koo fàttali comme Karbala xam ne fu ñu ko jaar ñun ko doo fa jaar kër naar yi nekk Mbacke ci lan jàpp woon sëñ Assane Mbacke ak sëñ Cheikh coro ñun ñëpp bis boobu yaakaar naa bëris leen fanaane woon bis boobu muy wër wër loo wër wër loo sëñ Fallou toog ca liggéey ba ba timis di ko xaar mooy sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue yal na la yokk leeram sëñ Saliou Fass Sow fa lañ ko xaar teeru ko teelu bu rafet àdduna bi di yëpp di wax xam bis boobu Baye Fall yi ba jugee ci liggéey bi di ñibbi sans police yi taxaw ak seen grenade ñu ne waaxoo jublu si ak sikar yi ñoom dañoo mujj di xàll dañoo arrêté seen grenade ban kon ànd bi nu ànd dafa yàgg cofeel gi ak bëggeel gi dafa yàgg lii nag dañ koy fàttali rek xëy na ah, message bi moo egsiwul ci moom waaye na wér nañ njaboot Cheikh Fall gi Cees gii la ñuy soo ci ndigalu sëñ Muntaxa Basiru sëñ Amdi Fall moo di mbenn mi nga xam ne mooy xalifa général di Baye Fall Cees gi kër gii lay gàmmoo kër gii daa bokk ci kër Seera Fall yi garab yi ngay ji sëñ Abdou Guèye ak yi ngay gis Seera Fall moo ko jël ci loxol boppam suxal ko ci loxo boppam sëñ Abdou Sakkoor di xalifa Seera Fall bi mujj euh, ci njaboot Seera Fall fii la feeñe jamono kon kër gi du kër gu ndaw président yi fi njëkkoon a neex président yi fi a nekk kër kër diine yëpp def nañ fa kër dalal gan waaye ñun suñu mbaar mi ku ko gis xam ne yemul ak benn mbaar ñun ñoo ko defal suñu bopp mosu noo xaar ci état dara waaye nag danoo bokk ci ak njabootam suy ñëw ci Thiès daa war a egg ci kër si Rafal gii loolu ñun dinañu bëgg lool lool dina leen bëgg lool yéen ñi ngeen xam ne Thiès ba mu daj suñu waxee électoral Thiès man na faal gi kenn mënu ko ci su ci ëppalewul kenn ëppalewu ko ci ngeen góorgóorlu ba gañe ko kon ñëw Thiès su yéen dina leen sigil waaw dina leen sigil te noonu ngeen ko defee woon ci élection présidentielle de vingt quatre kii deux mille vingt quatre bi noonu ngeen koy defaat ci le 17 yi ndax ñun Baye Fall yi ñun suñu borom dañoo féetalee dara ñun ay ay euh, looxor ak wax yi yóbbaale wuñu ñun jubal xool li sëñ bi bëgg ñu nekk ci loolu doo leen ci leen yàlla boole na mu teg fi gouverneur boo xam ne dem ba demee CRD bi wax di yàlla gouverneur bu baax bu rafetal lépp ko laaj su lépp ñëwul kon ñooñu ñaanal ay garaatam gën a kawe président yi ñoo ñaanal li wut ci réew mi ak li mu réew mi sunu borom defal ko ci ay tawféex ba mu bëgg ko ci barke maam Seeraama Fall jërëjëf kon ma wàcc ñu bokk Pastef Bergamo diaspora ku Euh, parti bi ak président bi yëpp kon donc ma ñëw fii rek euh, fekk si fii ñoom seriñ euh, Cheikh Abdou Seye ak xaadim hmm. ñoo waa patriote yi daal ay pastefiens yoo xam ne ce sont dévoués hmm. laa fi fekk ñoo xamante ni bii bëgguñu lu dul pastef ci lañ nekk moo taxit boo nekkee ci dara gis ca lu la ci naqari da nga koy wax hmm. lenn la nag mooy li ñu gis président Diomaye démb ñëw fii te moom fi mu ñëw sax ak pencum maam Cheikh ibra mii nga xam ne comme mooy mooy xaw ma baasu Baay Faal yi kooku dafa am fu mu jaar ak waa Pastef léegi nag seen xalif général di gàmmoo fii fii mu ñëwoon nii ci pencum njëganeen mii dafa doonul dara tànk koy dox jige ba bëgg a dee kon munoon na fi jaar te loolu rafetal lay doon boo xam ne dina am njariñ tu ñun ñëpp ndax Medina Fall gi euh, maam Cheikh Ibra samp ko nekk fi ay njabootam nekk fi xalif général fi mu ne nii ñu fi gàmmoo ñoom dafa doon ñoo xamante ni bii ah dañoo am kàddu ci dëkk bi ba pare réew mi tamit euh, di dëkk bii di Medina Fall ñu am électorat boo xam ne dañu bëggoon nañ ko defee woon ca élection législative ya euh, présidentielle ya rek ñu dolliwaat ko ci législative yu 17 bii di ñëw le 17 novembre bi incha allah mooy doog dolli doole comme loolu lañ bëgg nag moo tax bëgg nañ ñin doon waxal. ñu mën a jàkkaarloo waat ak ñoom wax ak ñoom te ñoom daanaka fii lañ nekk moo tax ñu bëggoon rek suñu président ah buy ñëwati defati yi rek mu ñëw wala même bu ñëwul sax suñu premier ministre Ousmane Sonko bi di dem ci Tivaouane bu fi mënee jaar bu déggee kàddu yi dina doon ci lu ñuy sigil ndax ñun moom Pastef la ñu am moom la ñuy sagoo waa kon nag wasalaam kàddu yi dugul